rabbul waraala mooy dogal di àtte te lu mu jublu loola dal di sotti ab dogalam soo nangoo far noppalu ku nanguwul jëfam yitam du noppalu fa kullu ma araadahu fa waaqihu islaalahu mudaafihun munaasihu ndax yàlla lii mën a defal murit yi suñ ko xaj na mu wàññi jooy yi te it xam ni mbàkke balla jógu fi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 waxaat yeneeni wax yu rëy ciy daraja ak i ngëneel wallahi moo am maxraja ba bis ba dellu see mu daat koy berndeel dal néew turam abdul ahad moo ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها نزلا من غفور رحيم نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله و ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن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 rabbana la ilaha illallah leen seereel mbégteem ci daayira jaalibatul maraaxib bii nga xamante ne jaalibatul maraaxib moom day féeteem donc moom daa féeteeg jaalibatul maraaxib am mbégte lool nag ci seen teewaay ci tuutànk yi ngeen àndal ñun ay ndaw yu bëgg lu baax ànd ak yéen ngeen tàggat leen ci ak ak yarub taalibe yarub taalibe bëggu sëñ Tuubaa ak di leen nàmpatal ci li nga xamante ne moo mooy seen njëriñu àdduna ak alaxira mooy yarub lislaam kon sëñ bi mu ngi leen di ñaanal bu baax a baax di ñaanal soxna yi ngeen àndal nga xam ne yéen a ànd ñoom benn pas-pas ngir ànd liggéeyal sëñ Touba ci bis bii nga xam ne bisu njariñ la ndax bisu sëñ Abdou Lahad bisu jariñu àdduna ak àllaaxira la moom mii muy maamam ñu duppee ko ko moo xamante ne dara ñoru ko lu dul sëñ Touba ak xaside ak taalibe sëñ Touba am na mbégte lool ci seen teewaay. ñëw gi ngeen ñëw ci moom rëy ci moom lool mu ngi leen di ñaanal bu baax suñu borom sàmm leen bu baax mu aar aar leen te def ndaw ñi mu def leen mag te def leen mag yi lislaam ba ñoom kenn ku ci nekk bu ngeen ñëwee fii li ngeen xamante ni yéen moom ngeen fi dajale andi ko fi kenn ku ci ñoom kenn ku ne ci ñoom mën koo def suñu boroom sàmm leen bu baax aar leen bu baax def leen ay murit saadix ba ba ba lépp lu ñu yéene ci lislaam suñu boroom defal leen tawféex ngeen def ci lu kawe seen jor gis nañ taxawaay bi bu baax a baax xam nañ ne eh, xam nañ seen pësteef ak seen yéene ak seen bëgg sëriñ bi kon dañ leen di ñaanal suñu borom mu def mu defal leen tawféex ak ndimbal ak sutura te defal leen xeewal yu ngeen liggéeyal sëñ Tuubaa te sàmm leen ba ngeen doon ay mag ba fa ngeen bëgg àgg ci yoonu sëriñ bi ngeen àgg fa na ngeen xam ne bu bu buñ leen gisee ak buñ leen gisul lépp géej gee gisee dara wax waxtu wu nekk ñu ngi leen di bàyyi xel yéen a suñ suñu xel waxtu wu nekk su ma ñoon bis bi seen ngeen gis ma xëy na eh, eh, jamono jii may tënk ba gise bi gën a eh, xaw a sore waaye jàpp nañ leen ngir jëmmi sëriñ bi ndax xam nañ ne sëriñ Tuubaa rek leen ñor lii ba ngeen ko tàmbalee ba naka ni at mu ne gis nañ ne Pastef bi ngeen ci doxe ak yéene ji gis nañ ko bu baax a baax te rey na ci ñu nit yéen ñiiti te seen i waajur ànd ak ñoom wàcc seen bopp ba maase ak ñoom ànd ak ñoom euh, gis nañ taxawaay bi bu baax yàlla na leen suñu borom fay te te sàmm leen aar leen yéen ñi di ay ndaw tamit góor ñi ak jigéen ñi ñëpp suñu borom wattu leen musal leen ci lépp luy lore ba fa ngeen bëgg àgg ngeen àgg fa. kaddu moom du nekk lu dul kaddu comme ni mu ko waxee rek. sosaat moom duy teggin sax mu wax ba pare ñuy wax ngir lépp li mat a wax lépp wax na ko kàddu yi kàddu yi sant léeg lay doon ay mbokki taalibe suñuy ànd di liggéey seen jëwriñ di liggéey seen sëriñ ah te di ko defee ca eh, gën gën nga anem daanaka ba ba bis bi eh, jébbale bi jot wala bisu dajale xéwal joxe ko ngir ngir ngir kiñ koy liggéeyal ak jëm jëmmi kiñ koy liggéeyal ah loolu du nekk lenn lu dul eh, kàddu mbégte comme ni mu ko waxee ñun ñoo gën a am eh, mbégte ginnaaw moom moo am mbégte ñun ñoo ñoo war a raw am mbégte ndaxte moom ni mu oyofale boppam li muy wax ci soxna yi moom moo ko goo gën a def ndax mënoon naa wax ni ah ñii de nangam nangam waaye defu ko heure su nekk dañuy laaj noonu mu ko waxee noonu la ñu koy waxee ana gone yi nuñ def ah chaque jour loolu la ñuy laaj moo tax ba tax eh, ñun de amuñu si sago ci liggéeyal ko ngir lim ñu wan ngir xasida yi ah dara dara ñoo moom lu dul sëñ bi sëñ bi donc moo ñu mën moom te te gisuñu lu ci moom sëñ bi ginaaw ci sëñ bi lañ lañ gis ci moom ak xasida yi te lenn lu fi nekk lu dul luy jariñee lu dul sëñ bi ak xasida yi ki la gën a jige sëñ bi ki la gën a bëgg sëñ bi ki la ki la gën a eh, jox xasida yi yitte daanaka kooku bu dee ñaari fan léeg léeg mu raw du mën a gudd waaye du mën a weesu ludut ah na leen feneen fu dul fii waxaat naa leen la leen ludut fii di jiital ci cant gi tout tànk yi nga xam ne ñoom lañ àndal liggéey bi ndax de doonte ñun ñàkk nañ pëseef waaye ñoom de amu ah, ñàkkuñu benn yoon pëseef sa sun naree dellu ginnaaw sax ñun buñ leen xoolee dañuy rus ngir ñoom niñ fonki daayira bi buñ sañoon it lii ñuy wax nii dañ dañ dañ la koy yalwaan ngir sëñ Tuubaa te xam na ni boo ñu ko ñaanalee moo am ndax am na lu ñu la jooytu woon te biñ la ko jooytoo gis nañ saafara si moo tax tey it kàddu gi mënuñoo wax sa waaye ko forcer ngir nga ñaanalul ñu tuut tànk yi ñu àndal seen seen dara bañ a génn sëñ bi ci jiitoo rek ñun ñu topp seen ginnaaw nga ñaanal ñu ko bu baax Mbàkke loolu rek lañ am luñ ci wax ci kàddu ñoom nee nan ah bis bi day saa buñ fi ñëwee toog fii sa kanam boo leen ñaanalee buñ demee bu subaa la ñuy tàmbale waat waajal déwén kon nag nga ñaanal leen sunu borom yokk leen bañ yëkku ndax ñoom ñii day ay ndawlaan lan ay tutànk lan dëppook jamono ji mën na dem di yëngu ci leneen waaye kenn xamu leen ci leen kenn gisu leen fenn lu dul rek bëgg la sopp la loo nekk lu nekk loo nekk nekku nu ca ba tax na bis bi saa su jotee ñoom ñëpp kenn deetul nelaw kenn deetul tay kenn deetul toqi ngir rek ngir lu jagal bis bi waaye nag mënuñu ko jagal ndax bis bi yàgg nag bu yàgg ndax sa baay jagal na ko Cheikh Abdoul Ahad Mbacké kon nag ñoo ñëwoon tey andi seen asakaay yéene ñëw teew ci sa kanam turandoo yëpp nga xam ne ñoo aju ci kër gi ñëw fii di yeesalaat seen njëbbal di yeesalaat seen ak taalube di yeesalaat seen cofeel di yeesalaat seen addiya kure turandoo yi ak goro yi ay goro say goro ak taalibe yëpp ñoo àndandoo ñëw sukaat ci sa kanam di sàkkuwaat ñaan ak soppe ak xarit ak wëllëri ñoom ñëpp ñëw nan kenn desut di ñaanal soxnaa bi mu nga xam ne moo war a libale si buri sëriñ Mbacke Maram di ñaanal soxna Daba Seex Anta yàlla lay yàq yàlla yokk seen leer ndax lu ñu man rek bale si buri sëriñ Mbacke Maram ñoo ma sa maam bi baax yooyu ak sa waajur yu yooyu ñu ngi leen di ñaanal yàlla yokk seen i leer bu baax a baax a baax a baax te di la ñaanal ñoo xam ne yaay suñu jëwriñ ci kër Serigne Touba ndax ñun yaay yaay suñu jëwriñ yaay suñu royukaay yaay suñu idol ndax yow siraatul mustaqim rek ngay dox koo bokkal dimbali nga ko ko àndal teral nga ko waaw nun ñi di njabootu soxna si Thierno di njabootu soxnaa bi ñu ngi lay sant di la ñaanal ci barkeb Cheikh Abdoulaye Mbacke barkeb Serigne Touba barkeb maam Santa borom dërëm a ngërëm barkeb maam Thierno Ibrahima Fati barkeb sa maam yi tëdd yëpp nga yàgg fi lool yàgg suñu Serigne bu baax bi Serigne Cheikh ab yàlla na fi yàgg te wér koo ko wax yàlla na fi yàgg te wér te ñun kat tubarkàlla macha allah noonu noonu kenn am kenn amu ko kenn am kenn ko ndax heure boo ñëwee mi ngi lay mi ngi lay wax lu baax del doxee nii ci seen yëgu sëy del waxee nii del def lu baax àddina amut solo ndax baax baax rek am solo dee leen bëgg leen Serigne Touba. dee leen julli dee leen woor dee leen dégg ndigal lépp tubarkalla masal lu mel yow kon nag bala si yàlla nga fi yàgg te wér mënu ma ko ci ñàkk sànni nag ndax dañu ne nit lu mu man ak lu mu am ka waral mu am ko na ko sant kon nag bal lay sa yàlla na am yàgg si sëriñ bi baax lu kenn amut sëriñ Cheikh Abi Mbacke yàlla na fi yàgg te wér soxna Ndiakhate Cheikh Abdoulaye yàlla na fi yàgg te wér noonu mel